بقصتي ومن بدايتي عثمان ذو سلام على النبي وأنا يصف ينتبه له سلام بنا دائما lan mooy rôlu jigéen ci classe politique ci l'islam ak kuy jigéen dañ koy déparé ci maam aadama alayhi salaam bi sunu borom nammee sañ ci planet bii di suuf dafa gaaral malaak yi ni leen nag inni jaa'ilun fil ardi xalifatan dama bëgg a wut représentant ci kaw suuf ku ma fa nekkal lu ci ne nag dañ koy jàng wax bu ne dañ koy jàng ndax alquran day résumé inni jaayilun fil ardi xalifatan dama war a wut bu ma représenté ci kaw suuf gis nga fi politique déparé foofu la déparé concertation kon war na képp ku mu mën a doon ci kaw suuf nga favoriser concertation ndegam yàlla mi xam lépp man lépp te bu nee kun fa yakun mu nekk na mu ko bëggee teewul mi ngi concerté ak i malaakaam ni leen dama bëgg def représentant ci kaw suuf kon képp ku mën a jiite war nga favoriser concertation waaye gi nga opposition ñaari opposition ñu am opposition républicain ak euh, opposition politique politicienne yal na yàlla mos ci boobu gis nga foofu nga daal gisee opposition républicain mooy malaaka yi opposition politique politicienne mooy iblis parce que malaaka yi dañ nga ah a atajalu fiha man yufsidu wa yufsiku dima wa nahnu nuqaddisu laka wa nusabbihu laka ah yow sunu borom loo nar a def nii da nga bëgg a jël ay tuurkati deret yàqkat mooykat fenkat ci kaw suuf te ñun nag nu sa nusabbihu laka ñun dañ lay sujjóotal di la sellal du nu fen du nu njaaloo du nu fa def dara loo bëggul waaw nga bëgg jël na koo xamante ne ma nga fa ay cuune gis nga kon république euh, politicien opposition mën na utiliser baatu cuune ndax malaaka yi ñoo jëkk wax suñu borom ne que bu fa yóbbu cuune bu fa yóbbu cuune ci kaw suuf ndax ay yàq rek lañ fay defee waaye gis nga suñu borom nekk démocrate ni kon nag na leen dem congrès dañ dem congrès bu ñu demee congrès ñu xool ku militant yi ànd rek ñu xam ne loolu la waaye congrès ba congrès bu xam-xam la sunu borom woo aadama ci suuf ni ko nag buñ la laajee ku dem suuf bëgg a lekk bëgg a naan nooy def da leen da ngay togg ba mu ñor nga ràcc mu sedd nga lekk ku bëgg a naan nooy def nga ni da ngay gas ci suuf si ndox génn nga naan ku tilim nooy def nga ni nga fóot sa yére ku bëgg a la nooy def ne na nga rab néeg defar mu ngoog ba baa kat ñu ñëw ci congrès bi malaka yi taxaw sunu borom naan waaw fa allama al adama al asmaa suma aradasum fa allama al adama al asmaa kullaha suma ardhum ala al malaika ñom ñépp ñor ci suuf subhanak la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alim al hakim moom jàll il faut ñu takal ko nak rangal ko garat bi nak pour mu door dem ci kaw suuf loolu moo indi dem àjjana mais aadama àjjana tax ko woon jóg parce que boo ko tax àjjana taxoon jóg du fa jaar waaye bu fekkente ni dañu nommé ambassadeur te résidence bi pareegul mën nañ ko dalal cinq étoiles mën nañ ko fa dalal pour mu xaar résidence am pare mu door a ay bagages am tuxu looloo yóbbu woon aadama àjjana ak bala nga fa dal lépp dal ka fa ndax yàlla xamoon na ni su aadama duggee àjjana ak ni mu neexee mu xëy xëy ni ko génnal ñeewante na nit yàlla dafa ñeewante nit moo tax mu créer sabab bu ko fa génne ñépp mu dajale leen moom suñu borom daan ni sujjóotal leen aadama nag toojal leen ko bu fekkoon ne nan sujjóot benn benn sax kon opposition politique politicienne bi du feeñ ba ci concertation yi war def am ñoo ñu ñu waye suñu échec am non la yalla bind àddunaam bi yalla ne su jóot leen nak ñepp rot iblis na jadd taxaw bañ a si jóot suñu borom ni ko mana ak an laa tasjuda qalaqt lu la teral malal ki ma tecc ci seen kanam amoon mu def daal di fëgg dënn bi ana xayrun minhu kii nga bind maa ko gën kii ngay bind maa gën lu tax parce que man tubaab laa wala man américain la gis nga ni mu dangereux l'islam boo ko jàng càmbare rek dara dootu la të xam suñu borom ne ko yaay ñak teggin xam nga lima bind ak ni mu tollu ba nga taxaw di fëgg dënën naan ya ko gën faxruj sors de ma maison sors ma maison gennal sama kër ci biti république foofu lañ fa taxaw tuddi ama sal li tax mu ni ko mako gën moy yag ci parti bi man nga yag ci parti defee ni keneen ku la supérieur ñëw mbir mi du mbirum mag du mbirum jiitu mbirum xam-xam la ak borom biddéew ak ku yàlla tudd man nga nekk ci parti mujj faa ñëw ñëw nekk fa président de la république lu yàlla di dogal la ak xam-xam looloo dal iblis parce que iblis ne nañu fi kaw suuf fopp foo teg sa tànk rabbu jamu la dégg jamu la xeer fakkatalu la iblis bu fa sujjóotal sunu borom xanaa kon kon xanaa kon jaamu yàlla kon mbir mi du mbirum loolu mbirum ndigal la ndigal caabi la bu ëppee du ubbi bu manqué du ubbi mu lànk suñu borom ne kon kenn nag noonu la génnal dégradé ko completement gis nga bi ñuy dem àjjana ci fi ngay xam ne politique rôle jigéen ci kaw suuf foofu lay départ rôle jigéen ci politique politique mooy lan mooy tëralin politique du lenn loo xamante ni ah, waxin wu ñaaw la wala nangam tëralin la te képp koo dégg lan ni sandi lan mu naan la politique fii la yam jëmul àllaaxira xamul xew koo dégg mu la politique fii la yam xamul la xew defe nga ni mos ki politique ba jot réew tabax hôpital bu mag nit ñi di ca faju wuti garab yow ma ko tabax doo jam tuyaaba lu yàlla wax man sun man sanna sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajur man amila biha ku def lu boo xamante ni nit ñi daan ci am tuyaaba ku ca am lu ca waay def dina ci am tuyaaba te du wàññi ci sa tuyaaba dara nga defar maa ngi wax na sous contrôle imam Ñang ak imam Diallo ku defar ay école xale yi da ca jàng wala nga defar ay tali wala nga wañi paj mi wala nga def lo xamanteni ni dana tax borom keur yi nek ci jamm loolu da nga fi yallu la ca fay sayyidna umar bi mu ñewé don khilafa dafa taxaw indi ay charte yu leer ci bir diina ji mo moy politique bi ahlu suffa xamone ngeen len wa ahlu suffa dañ daan xey rek tok ci ma bu ñew ñu mokkal ko xadis bu ñëw ñu mokkal ko Seydina Ahmad bàyyi leen fa kar bàyyi leen fa waaye Omar bi mu ñëwee daf leen ni yàlla du taw xaalis du taw wurus du fa du taw jamaa dem leen ngeen liggéey gis nga njiit ni mu mel encore jëlal kii Seydina Omar dafa koy fal ko gouverneur comme ab abu hurayra dégg ngeen ko bu yàgg ni abu hurayrata ku bari xam la xadis yu bari da ngeen na rawaahu abu bi ñu gouverneur mu dem ñaari at rek am xaalis bu baree baree bare ak ay nag ak ay gilim omar woolu ko ñu ko yow de bi ma lay fal bi ma lay fal amoo sax ñaari peeri dal foo jële xaalis mu ne ko bima ma dama jënd fas wu jigen mu jur ma dugalante ko nak nag nagoowu jur ma jënd ci ay xar ni ci ay bay moy jur gett gi yépp Seydina Omar ni ko yónniwu la pour ngay def ay marketing yóbbu yónniwu ma tam pour ngay dajale xaalis doxal ci xol jami ñu bëgg seen borom waye bu bëgg lo alal daal di jaay alal yépp delo ko ci baytul mal yóbbu ko trésor kooku moy Seydina Omar kon njiit ci politique il faut nga tang, il faut nga ñemee deug il faut nga am lo taxawal Seydina Omar mom lañu jël exemple ci bép njiit ak ko lo mëna jité deug dëgëraayam deggom bëgg l'islam bëgg institution yi samako kok moy mooy Seydina Omar ibnul khattab Omar ibnul Khattab? fal na ben gouverneur Egypt. Égypte ñu nak Amr ibn As Amr ibn As Bo, domam di bok ci kursi comme ni nawetaan yi def fi rek ñoom awañ nag léeg ñu organiser ay ay phase finale di joxe ay ki di jàkkaarloog public bi lolu ayul organiser dara ci terrain yi nit ñew ñu joxe ay cadeau pour mo na jakarlo ak publicam am As def lolu di ñu organiser course bi ñu organiser course bi domam ci la bokkon ñu gagné domam dom ji bi ñu joxe trophée bi mu ñew fekk ki jël trophée bi mu nikah ko karawaas ci bopp bi ni ko ah, li nga mérito sama bay du gouverneur sama yaay di première dame ci commune bi nga ngay ko sax man di ma raw do la bi nga don door ko door yi bon ken waxul waye xale bam am fulla da ray nelam dem ci aji mu ñew ci aji bi ñu ba agal mu ñew gis dina man fi mu toog mu ñëw ni ko sama nel bi de góom bi ci nek sa doomu góor bi moko def dañu course ba pare ma jël sama trophée mu door ma fa ni sama bay moy gouverneur sama yaay moy première dame may course mom di raw may xol nak deug gi fi yunus ya, yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam won abou bakkar bayyi ka fi ñew nga ñoo toog fi nak deug gog dafa jeex Omar daal koy gestu ni ko ndax ñu wax dëgg la mu ñu noonu c'est-à-dire parce que nangam mun ko deet waxuma la c'est-à-dire je pense que ndax dëgg la gaa yi fa toogoon ni ko dëgg la ñu ñëpp ñoo ko fekkee Omar ni ko waxuma sa doom ndax nekku fi waaye influence bi ñu am ci nit ñi bay ci yow lañ ko xamee ndax yaroo sa njaboot boo yaroon sa njaboot duñu ko def wàccel fii nga ñëw wàcc génne sa nel bi mu toroxal la na sa doom naka sa doom ji toroxale woon wala ci ci day ñeme boo ko la ngaañ rek doo dem nee naa ne démocratie yàq na lu bari démocratie yàq na lu bari te ju xóot laa la wax mu ne ñu génne nel bi xale bi ni ko baal naa la ndax Omar mii ni mu ñemee dëkk kon ndeke dëgg ngi fi ba léegi baal naa la Omar ni ko baal nga ko waaye institution yi du ko baal fori nañ la daal koy folli falaat keneen loolu aba eh, abu moussa al yi ci jamono Sidna Omar moom it loolu dal na ko nommé nañ ko gouverneur mu dem attaqué benn xeex jël benn généralam tabbu ko ci mbooloo mi ñu dem gagné ñibbisi ñuy mi séddale bitin yi mooy màng gi ñu fi jële li ñu ko jox moom capitaine bi ci jiitoon combat bi bariwul mu ñëw contesté abu moussa al futti ko ci biir mbooloo mi caw ko toroxal ko mu bind lettre Seydina Omar nett li ko yim demee yépp Seydina Omar bind ko lettre ni ko woowaat mbool mboowaatal mbooloo mi ñépp ba mu ñëw nga futti ko ci seen kanam mu toroxal la ni nga ko toroxale ba nga xamante ni faalu ñële ngeen nekk buur ci kaw nit di ba nga bangi góor kenn ko toroxal li muy contesté dëgg la mu daal di bind lettre Omar di ko ni nga wax dinaa ko def ñu ñëwaat ba ñu def cérémonie bi mu ni ko baal naa la ci xol bu sedd guy Omar yi la taxee woon gis nga pour nga samp réew il faut nga ñeme ŋàññi sa jëm ji bu mu la gënal institution yi ku mu la neex saagaal ku la neex xasal ku la neex defal loo bëgg def waaye dëgg gi nga xam ne mooy dëggug yàlla gi jaar ci rek yàlla ay atte askan way atte quelle que soit bu mu mën a doon nag yàlla ay atte askan way alxaqu yaalu wala yuula aley dëgg day tiim waaye dadu ko tiim ñu ñëw nag ci jigéen ñi ñi xam ne yéen a woote yéen a woote di laaj seen rol ci biir lislaam ci biir politique bi nu ko lislaam gise rafet lu ko doon amul benn yoon bu lislaam tëj jigéen ci pantere ni ko bul génn amul benn yoon bu lislaam te jigéen ni ko li ci pénc mi sa yoon nekku ci parce que pénc mi bala moo jag jigéen ñi ñoo koy jagal waxuma lu leen neex de il y cent vingt quatre mille prophètes yu yàlla yónni woon amul ko ci takkul jabar ñaara ci amul jabar te seen mission àggul Yaxya ak Isa Jésus ak peseem àggul bal rafaahu yàlla koy yëkkati wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum rayuñu ko pendaruñu ko dañ leen nuróoleel ku nuróog moom bal rafaahu moom yàlla koy yëkkati moo tax ñun dana dellusiwaat te amul woon jabar indeel Suleymaan ñaat la woon ñetti téeméer yu manqué benn jabar daaw daal ëppale ko yonente bu fi nekk nag bëgg sa mission continuer il faut nga am soxna yéen ñii ko amul ci yéen du dem fen loolu laa bëgg mu leer nañ moo tax yéen yéenay sunu cheikh ci kaw suuf bu ma mënoon wax baat bi ci tubaab dinaa ko jéem chaque grand homme wax leen ku ma dégg yaa une grande dame <laughs> waraa kullu imratin kullu marin ibratun azim jigéen joo gis góor goo gis muy réussir di daan am na jàmba ju na ca wetam yow képp ak sa xalaat dong ak su ci bopp bàyyi sa jabar doo dem foo waree doo daan maa la wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu istawsu bi xayran jëf leen te la jigéen ñi ci yiw jëf leen ak jigéen ci yiw ma jël la Khadija imam wat Khadija mën naa la ni ci début njëlbeenu lislaam li yont bi sallallahu alayhi wa li ci ëpp Khadija moo ko liggéey moo ko jëkk a bëggal boppam moo ko labatal boppam jël ñaar fukki giléem ni ko joxal samay mbokk ñu takk ma kon moom moo jox can gi ñaar fukki giléem ci boobu jamono boo doon xool ñaata 4-4 la ñeenti 4-4 ak juróomi xaama waaw ñu ngi dégg kon kooku maaritaal yi mu takk ko denc ko xëy ni ko nan nijaay mu ni ko naam mu ni ko bëggatuma moom dara ñu di ma moom xooleen lu rafet lii rek ginaar ak cuujaag nit ñi yépp borom ginaaru ko moom loo bëgg waxal léegi nag bëggatuma ngay dem ci pénc ma mbaa ngay dem ci grand place toogal ci kër gi rek mu ne kon nag damay dem fële ci xaaru xiraa di fa xalaat sama borom fa la ko jibril fekk wa attahu lil buluuxi jahdi qaa'ilahu باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نكو يرحبك موتيت نك نان با با با با راك راك راك مالغري نيت لا واي يونت بي عليه الصلاه والسلام المسلم جس جبريل تي بو انام في دي دوخ دي دانو تانك يدم مو دوخ دي دانو دي دوخ دي دانو بي وي نيو سي كيرغي فك خديجه mi ngi rat ben way ben bay mu ñëw ci kër ni tal daal mu ne yarax bay ni tegg lay kër ci suuf da ni pak li comme jigéen ak la pour mo am doole ni ko cas yëkkati ko taf ko ci mbokk and ak mom dar dar ak mom dugal mom ci biir néeg bi ba ci kaw lal bi mo tekk ci kaw lal bi sang ko muur ko ni ko li lu mu doon ni jaay li lu mu doon ਸੰਗ jel ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸੰਗ am gan teral bismillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam moo man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu ku gëm yàllaa ko yonentam na nga teral sa gan kon ayul gan di dugg ñu ben Diop muné ko nijaay li lu mu don fofu nag la rolu jigen commencé day fat Ndiaye ndey fatu muné ko nijaay dalal giñna ci yalla ni yalla setan, setan yalla dula toroxal ndax ba nga ma ba nga ma yoré ba légui mosoo maa toroxal muso def lu ñaaw muso def lu bon kon yalla dula fayé mukk lu bon té dula fayé lu ñaaw déglu nga yoy point kon yen góor ñi am ngeen wal ci wal woowu jabaram moko sédel muso ma maa doroxal muso ma janni muso def lu bon ci man mukk jëbé ko ci man ko kon bul sentu dara lu dul jàmm yàlla du la doroxal mukk lolu la ko khadija wax ko ban tegg ko ni ko tegg bàyyi ko fa dem ci warqata na nawfal ni ko sama jëkkër day sama jëkkër dafa jommi ndax la mu gis man ma lu mu doon waaye da koy tax muy mel na luy tiit mel na luy xaw a perte de connaissance ma bëggoon na yow yaa fi nekkal diine yont yàlla isa ak Muusa nga wax ma ndax siiñ yi waxoon ni ab yonent aaxiru samaan dina ko am ndax du moom mu daal ni ko yan lay yan siñ lay wane mu ni ko ndaw si waa waaji daal su ma ñëwee man en tant que jigéen suma mure sama babi mu daw suma mure sama babi mu ñew yoy siin dal lay wane moom dal bu commencé nan mi ngi ñew mi ngi ñew mi ngi ñew rek ma muy sama babi. suma mure sama babi rek mu ni dem na dem na dem na dem na mu ni ko ak neexon neexoon bu ñu ma dee génnee mu fekkon ma man may ndaw am katan ba taxaw ci wetam ba jappalé ko mu ko dañ may génne mu ko dañ la génne bis bo né yalla kenn dañ la génne fofu la rolu khadija ñëw day fàtte ndjay xamu nu mu def duggu ci dëkk bi fa yeen sama waji lu ngeen ko contre sama waji lu ngeen ko bañé commencé def finance comme li ngeen def duggu ci dëkk bi di financer nit ñi khadija alalam jooju limuy bari bari bari da doon financer

mag ñi ñu ci jàkk yi yoruñu dara ñu fekk leen fa leen dimbali ndax mag mu ne ci jàkkaam fayoo ko salaire jëndaloo ko ordonnance sa morom defu ko soo ko dee xas na xool na koy xase amoon na fi coow lu bari ca ginnaaw ñu naan soos soosaat day la wax neex ñi ko doon ngi nii may laaj mag mu ne ci jàkkaam fayoo ko salaire sa moroom fayu ko salaire fayaloo ko ndox fayaloo ko courant am njàngum doomam sa yoon nekku ci joxoo ko dépense joxoo ko dërëm bu xët mu toog ca jàkk ja boo bëggee takk jabar ànd ak say mbokk fekk fa mu takkal la bu jabar amé dom mu and ak délégation ñëw tuddel la bu sa mbokk mu and ak ay mbokkam jakk ji ñepp and ak ñom ñëw sangal la ko sangal la ko indi ci bundu jakk ji jullel la ko and ak yow yobbu ko ba ci armeel ya. tinul la sunu borom jéggalul la ko and ak waxtanal la fayo ko joxoko pass yewi woko niko imam boo xam say loxo dem bo xey dem liggéeyi nit jege ca ginnaaw ñëw jox ko loo xamante ni kontaan na ci mu ni waaw góor nga ne ko doo ko fi waxe loolu xel nangu na ko jërëjëf imaam ci sa fit ak sa fulla ak sa fayda taxawaay bii nga taxaw ñun les jeunes dali ko ñoo ko waroon def bu nu nangooti mukk kuy saaga suñu kilifa yi wala kuy xas suñu kilifa yi parce que ñun yéen la ñu am ñun yéen la ñu am ku leen fonk ñun nga fonk leen fonkul fonk ñu la ak koo mën a doon yéen lañ fekk ñun dañu ñëw rek fekk leen fi ngeen ak ñu ju baax tontu naa benn waay buy wax ci imaam yi Dalifort yi ma ne ko soo ñëwoon Dalifort bañ la ñii ngay waxal ñii la di nga sa mbaxana jox leen ñaari loxo ñoo la gën fuuf ñoo la gën fuuf waaye nag politique moo demee noonu. taxaw leen fi ngeen war a taxaw Seydina Omar leen gën foofu te dañ koo boom ca jàkka ja ak lu mbaax yëpp dañ koo boom paaka lañ ko dëbb mu sedd guy Omar Ousmane dañ ko boom Ali dañ koo boom ba fii ñu toll nii li lislaam amul kilifa ku fi wootee ku ne ñu dal sa kaw loolu pas parenthèse bu fi duggoon rek ma ne rolu jigéen Khadija moo jëkk a def c'est le feu ci mag ñi nga xam ni ñoo contrôle yonent bi danañ bàyyi ba guddi mu dem waxtaan ak ñi ko contrôle comme ni ma Marème Faye Sall di def te ñu koy dégg ñi umpale président muy dem di dox di sotti ndox man na gisaguma ko joxuma dërëm it nag yàlla tax may wax dërëm joxuma ko ma ma dalee ànd ak mooy sa ñaar dërëm joxuma ko fekkuma fii kenn fekku man maa moom sama bopp bu nu woon dëgg du ma ko wax joxuñu ma dara yéen a ngi ku ko ko seede na wax waaye dama ne mi ngi def lu baax ginnaaw ko def lu bon nu wax ko bu defee lu baax nu wax ko kon yii yaa ngi noonu nu nu muy jàppalee borom këram di ko jàppale réew mi di ko jàppalee ndongo daara yi di ko jàppale nit yi diina yi ñoo ngi ko ci sant di ko ci gërëm mbokk yi fi may daaneele jigéen classe politique bi naka la ko lislaam gisee ma lay indil laa ren saba balqis balqis imam wat na lu mat ñeenti buur yoo xam ne ay góor lañu te ku ci ne ay continent nga jiite ku continent nga jiite moom Balqis mu jiite leen waaye nag di sujootal jant bi bu jant bi day génn ñépp sujjóot ba mu taxaw bu jant bi dee dugg ñu sujjóot ba jant bi dugg kon jant bi moo doon seen yàlla waaye bi yàlla doo dowalee bi yalla dogalee yont yalla sulayman demone màkk bay wàññiku ndax neena la màkk bepp yonen bu yalla musu yondi rek dem nga fa ndax màkk dekk la won bu yalla kodé don ko xare borom kaaba ga nga fon inna awwala baytin wudi'a la lazi bi bakkat mubarak kaaba ga nga fon sam-sama nga fa yépp a nga fa woon waaye seen boroom ñëwagul woon waaye yonent bu yàlla yónni nag di nga fa dem teral kaaba ga rey fay gàtt fanaan fa mbaa nga yendu fa ñibbisiwaat bi yonent yàlla Suleymaan di ñibbisi nag ba ñëw ba tolloog yaman ni nañ leen tekki noppalu ñu wax jinne yi ñu gas ñu ñu ñu naan fóot suñuy yére noppalu door a ci diggante boobu am na picc muy wax hudhud ci moomu moom lu mu gën a kawee ci kaw la bëtam di gën a ñëw ci suuf mooy ingénieur loolu yoo picc mu ingénieur mu naaw nag xool yaman ni mu seddee ni mu neexee mu ne xaaral ma promenade tuuti xool fii découvrir quelque chose naaw tuuti dajeeg beneen moroom piccam nuyonteeg moom mu ne ko fii nga dëkk mu ne ko non man gan laa fi koo àndal yonente bu mag bu jox seen teel Suleymaan mu yon dia sulaiman yàlla Suleymaan yonent la buur la mu yon ko buur la yonent la mu ne burbi soo bayi sunu buur bi di nga de Balqis di sabal mu ne ah dafa hawa a xat nii rek mais waroon naa fa dem gis ko mu non lañ dem na nga gis ko nga xol nguur gi su terrain la nangam nangam wax wax ba monde ki dem fatte na ni mam warna dem won mala fi ndox mi nek Munuga konen ko dem xana ma fa yag yàgg noonu nag yaayaaru nak naw nak dem bay egg ci pale bi ñu tong ci ben fenêtre munuko ne fekk na ci suuf bi mat na presque autoroute 17 mètres ci suuf da ngay ubi bunt dugaat ubi bunt dugaat ubi bunt dugaat door a egg fi balqis nek mais mo gis ñuy sujudal jent bi mu li lan la mu ah, ñu nak jent bee suñu yalla mu jent waaw dama koy rek ci temps boobu Souleymane nee na ana hudhud seetal leen ma ko ñu wër-wër gisuñu hudhud ñu woo tan ni ko naawal tan naaw ba ci kaw xool-xool seenu ko Souleymane nag mer daa ni ko dinaa ko suqi su ñëwee fii dinaa ko mbugal dinaa ko fit daal ndax lu tax mu ànd ak man ba waxtu jël yu dañu romb tew ko fen ci loolu la tan seen nag hudhud di naaw di génne ci pale bi di ñëw kan day ak mom ah? oh, iya, nak dal di koy iya, fiir ko yow def nga lu reuy bor bi dana duma de kilifa ko toll ne nga ànd ak moom ah au lieu kon nga réglé xala ngay dem nit ñaa tok di xaar pour ñu mëna gas jinn yépp gi taxaw pour ñu mëna gas ndox ñewulo vraiment tegoo ko fen nee di dina duma de Sali Diallo nee mu ni ko waye waxul ni suma indé suma indé ben lay wala su ma indee dara daal waxu ko mun nga aw la yàtt yan nii bi sultaani mu biir xanaa nga indil ko lay wu wóor wu palpable mu ne kon na jawtu mucc naa am naa lu leer lu ma ko war a wax yaa ngi dégg am naa lu leer lu ma war a wax ñu ànd na ñoom ñaar bi ñëwee ba jàkkaarloo yonent Yàlla Suleymaan Suleiman mer ba Hong xom di tourné waaye gis nga li nane kilifa so amé sa kilifa am na respect boko wara jox tout le temps dafa daal firi laf yi ñett gi commencé dan job di yuguri ni di di ñew ñëw nag ndeysaan Suleiman. Suleiman Sulaiman mer ba xonq waye degul nak la ko ma wax wuqufaka inda rabbik bur fàttalikul sa taxawaay ci sa kanam borom ëllëg nii ma taxawee ci sa kanam néew doole lool nga am ci man sañ-sañ ëllëg di ko taxawee ci kanamu yàlla néew doole lool moo am ci sañ-sañ waa di nga bëgg mu yërëm la Suleymaan commencé wàcc mun ko caaxaan yu ma woon doxuma woon caaxaan farat laa doxi woon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane dafa wax ni nee na woon dama la boo ma bëggee dama doxali woon ngoro ngoro laa la doxali woon <laughs> wallaay wax dëgg mu ne ko dama fekk benn buur bu nekk fii ñu naan ko laareen di saba buur boobu jant bi lañu si sujjóotal am na fauteuil boo xamante ni nag musuma ko gis ci kaw suuf di ko taal di ko taal di ko taal di ko ba Suleymaan ni ko ah mu ni ko waaw loolu la waaye gis nga taxul mu avoué dafa ne sa naan suru sadaqta am kunta minal kaasibiin dinaa la bind lettre nga dem joxe ko ñu xool moo tax kilifa tam toujours da ngay gaawan bul gaawantu kii convaincre na ko ci wax waaye def ko ni dinaa xool ba xam wax nga dëgg wala da ngay fen dinaa xool ba xam wax nga dëgg wala da ngay fen bind benn lettre daal ni wa innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim allah taalu alayya waatuni muslimin point dafa bind lettre ni ko maa ngi lay bind benn lettre yow Balqiis mi ngi bàyyi ko ci Suleymaan te mooy bismillahi rahmaani rahim boo gisee ñu bari bu ñu nee julli du ñu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim nee nañ bismillahi rahmaani rahim moo fi jiital alxuraan lu yàgg loolu seen lay la waaye kullu amrin si baarin wa lam yubda bismillahi rahmaani fa warad am déet mu <laughs> mu ni ko demal nga yóbbu lettre bi soo demee nga suruxal ko foofu ba mu xool ko te bul ñëw toogal déglu ba xam lu ñu wax foofu nga xamee maturité jigéen jigéen ju responsable jigéen politique seen foofu ngay xoola sa bopp boo bëggee doon la reine du Saba jile waay may ku ko bëgg demaa jënna ana soppi Seydina Muhammad xaddamaahu fadlanada man fuddila nabi doomi Abdallah محمد رسول الله ميمي وي خص نبينا بأسرة القصال سيدنا محمد لم يختلف خط ولا له ظلال بن لاجي نخنا نبي وبلي loxo càmmoñ la daan teg ci gémmiñ ga mbaa loxo ndijoor ba nil déedéet seydina muhammad masta wëbbali yonti yàlla muhammad lam yaxtalim xatun wala lëwo zilaal wal ardu ma yuxriju minhu tabtali lépp lu génn ci seydina muhammad suuf si da koy wann ba mu jeex ngir warmaal rasulallah wal ardu ma yuxriju minhu tabtali القزاز وباب أنه حقا ممكن أن صبي سيدنا محمد من خلفه يرى كما يرى الأمام ñun ñooy dox di gestu waaye oustaz sa soppe ba sama soppe ba daawul gestu ginnaawam ndax na muy gise kanamam noonu lay gise gannaawam man xalfahu yara kama yara al amaam yonnen tanaamu aynahu wal xalbu laa yanaam xol ba moom Seydina Muhammad bu ma sànn tëdd nga foog ni dafay nalaw bëti rek ka daan gëmm waaye xol waat naa ni dali foor ma ñëw maa fi gën a bëgg Seydina Muhammad bu dee am na keneen na jóg taxaw nan ma maa ngi nii ñu màgg rasulillah jéem mënu maa naalaw ndax sama xel mi ne ci rasulallah fi gën a rasulillah jógal màggal na bi ñun suñu xol yee ngi

lii bett ma ci waa Dalifort parce que honorable député Awa Niang si njàmbaaram ak taxawaayam ak ci liggéeyam war naa mën am lu ëpp lii fi ki xam ban conférence daay dem di tidde ndax dinaa fekk ay ntuwaay fii moom xamoon naa ne lay parce que honorable yaa ko liggéey yaa jàpp te bàyyi woo yaa sonn ci jigéen ñi yaa sonn ci président Macky Sall kon ñu bu baax di félicité ñi nga àndal ñëpp nag su ma limee damay juum waaye commencé naa ci benn jigéen bu njëkk ak bu mujj ñëpp maa ngi leen di sama tur ak turu gouvernement Sénégal ak turu son excellence le président wax ne nag tey bés bi dafa rëy parce que fii département de Pikine commune de Dalifort woote lu day nii. ma nekk ministre la femme jigéen taxaw ñëpp honorable lañu honorable awa ngi toog awa ñaa as soxo keneen ak keneen honorable lañu te loolu président moo ko def moo sargal jigéen ñi voté la la parité jigéen ñi seen taxawaay ci nga xam ne pouvoir décision yi dama leen koy jox te loolu président moo ko defal kon ñu ko sant bu baax di ko gërëm di nuyu nag kilifa diine yi ma fekk fii yëpp maa ngi leen nuyu kenn ku ne turam a sant naa bu baax honorable yow kenn nga ci man nga ko waxee léegi sama sœur nga dumu tëdd mépp benn bés te waxante wu ma ak yow te ci lu baax la ñuy wax rek nag lu defar ak lu ko jigéenu Sénégal nga jàppale mu baax nag sa xol bu rafet sa baax sa politique nag dafa am lu mu tëddee léeg-léeg nekk jigéen sa moroomu jigéen nekk dara sax nag boo ci moom daal tam di ko jëm galgal waaye yow gàcce ngalaama sama diggante yow lu baax laa ci gis lu baax nga may defal loolu nga ma accompagner naa ci gis naa ko te képp ku ma naa la awañaa kenn ci man parce que nit nag boo nekkee dara ki la ciy fekk di jàppale mooy sa mbokk kon jërëjëf honorable li ma sagal nii yëpp nag sagal ma rek moo tax def ko bëgg mu am ndam waa Dalifort mën nañu jël keneen tey mare na ko waaye da nga xam ne amu leen ko du man amuñu kontaan naa ci bu baax maa sant bu baax. nag ñun amuñu lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu woowee lu mel nii tamit il faut que ñu bàyyi yëpp sama ay nit xam nañ ni tey euh, dama leen invité ndogu kër ga lu mot ay téeméeri nit ñu ngi may xaar mais il fallait que ma ñëw. pour wan leen ni bés bii moo ñu ko war a gën a amal solo lu ñu gis ci àdduna ndax weeru koor lañ nekk bu ñu jëlee ab bés di ci waxtaanee mbiru diina même bu dee dañuy wax ni tamit rôlu jigéen ñi ci wàllu politique ak diina niñ koy méngalee donc dafa am solo tamit oustaz ngeen dimbaliñ ci pour di gën a yee jigéen ñi moo tax ma sawar ci lool kàddu gi nag du gudd du ay kàddu gërëm ak sant gërëm naa leen bu baax sant naa leen Euh, li ñu fi indi moo ñu ëppal solo discours yi nga xam ne ñun ñoo koy def mooy euh, suñu borom ak suñu diine kon ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo ci gën a aay ak ñi nga xam ne ñooy tagg suñu sange bi ñoom ñu bàyyee leen micro yi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa ngi jéggalu nag bu doon Kolda sama mbokk yee ñooy jël micro bi waaye wolof bi daal xam naa ne dina doy waar mais puisque man dama am tuuti ci séeréer gi nag ma jël jël micro bi maa ngi leen di sant bu baax jaamu yàlla bi ci for, a fort la ah abib fii ci waagu ñaay fii ci waagu ñaay benn jigéen dafa ñëw ci imaam ne ko dama bëgg nga xoolal ma ci magi jàkka ji ku ma jël te yàlla rek tax xam naa ndaw si daa sol lu woyof ndaw lu woyof ko ne ko baax na bu ñu timis naa leen ko wax mu ne ko kon maa ngi ci jàkkay jigéen ñi ndaw your dem ci ña yor Adja Awa de bi ñu jullee ba noppi bi ñu jullee ba noppi imam ne ngeen baal ma de am na jigéen ñu ne ci jàkkay jigéen ñi nee na dafa bëgg ko jël te yàlla rek tax benn góor yëkkati loxo ne naa ko jël te yàlla rek tax naa ko jël te yàlla rek tax ñu woo ndaw si xam nga jigéen bu mu sëy sëy mën na maye boppam ñu d'accord ñu maye leen ndaw si jël na jëkkër ji daal di ñibbi xëy wàcceel ko 4 4 BM double V yu mag yooyu teg ci juróom fukki grand boubou juróom fukki deux pièces juróom fukki baxana juróom fukki marakis ñaar fukki parfum de classe ak fukki million nekkoon ko ndijaay maa la ko nuyoo imam bi ne ko déedéet dag maa waroon wax rek ne ma nii nga mel xam nga boo ma waxoon ne ma nii nga mel maa lay jël mu ne ko allah man kat dama ni ku ma jël te yàlla rek tax te allah ji mii moo ma jël kon bokk na ci jaamu yàlla yi ci gën a foor bokk na ci ci bokk na ci mooy mooy sëy jigéen ñi nag ci seen wàllu diine dama indi ñaar pour ngeen roy ci ñoom sayyidatuna Aïcha ngeen roy ci moom ci wàllu diineem wàllu comprendre àddina waaye ci wàllu politique xam àddina comprendre àddina kër lenn ca mu mukarram ñu wuy si waa ji mooy Xadijatu ah xam nga honorable député Adjaratou Awa Niang yitteem dëkk mooy convaincre Sénégal gep pour and président ah Aw loolu la de wala ah Légui nak Sayyidatuna Khadija mom yitim moy don xol gaay yi don xol jigen ni di waxtan ak ñom pour convaincre len pour ñu ci l'islam. Mom façon politique bobu la def Waye adina nak yalla neena yow nit na nga rafetal jëmi ci sa bop comme ñun yalla ni ñu rafetalee jëme ci yow te cër bi nga am ci adina bul ko faté kon politique dafa dagal waye nak politique nit mën na ci jaamu borom bi subhanahu wa taala ba yu ba dem aljanna am ñu mu yóbbaale waye politique gi nit mën na ci am jëppig borom bi subhanahu wa taala ndax boy wax mu wóor la ni yow li ngay wax lepp dara du ci dëgg te yow li ngay wax naroo koo def fas yéene woo ko te dara du ci dëgg yëg nit ñi kenn moomu leen boo leen yëgee nu yëg la boo leen yëgul nu bàyyi la fi kon honorable député yëg gi nga yëg nit ñi moo tax ñëpp bàyyi seen i yitte yëpp daal di ñëw yal na yàlla yokk la dëgëral di nga gën a sonn ndax di ngay wuyu ji di nga gën a sonn ndax sa jaboot gii ku ci xewal da nga dem ca moom koo ci gis a gis di ko kon mbaax boobu nekk ci yow ñëpp seedeel la ko ñu ngi lay ñaanal yal yàlla yokk a dëgëral waaw ah, am nañu mbégte Adja Dior ma kaa firndeel honorable di la gërëm di la sant te di commencé gërëm gi si sama mag ju baax ji di Mame Boye taxaw na ma biir Dalifort sagal na ma vraiment wan na ma ni ma wéetu ma keroog bu ñuy liñ parrain yi ku nekk di wax ma ne la honorable am naa mag boo xam ne bëgg naa mu bokk ci parrain yi nga nangul ma ko joor aussi dem internet xoolal ma fa photo bu rafet defaral ma ko ci kartam ma kontaan si parce que mënoon ngeen ne tànn nañu suñuy parrain ba pare duñ ko def parce que à la dernière minute la sentir ni que moom ku baax la lu muy liggéey dañ ko war a waxee ba ñëpp dégg ko parce que man Kolda laa dëkk Dalifort gaa am naa fi kër maa ngi fiy toog mais samay parents ñu ngi Kolda maam mooy nga gis nii dafa taxaw waa Kolda mu ko xool ma defaral tey rek nga xam ne kuy waa Kolda ku ne foo nekk mu fekk la fa parce que lii ce n'était pas évident munoon na ne aw ma jot lu ma si mën dara mais bàyyi na lu mu jàpp yëpp mu ñëw sagal ma samay biir nawle jigéenu Benno Bokk Yaakaar yi parce que lu mu joxe ñëpp xam nañu njariñ ba am si ñu mu fi àndal yëpp samay frère lañu. nuyu si di imam yeeg délégué quartier nga xam ne fu ñu toll ñu ngi taxaw awa ñaa ci biir Dalifort Alaaji Adama Fall yal na yàlla yokku wér yaag sa code yaag sa adjoint nee na Tamboura ak Amath Sall moomu ngeen xam ne bàyyiwul leen dara awa di dellu di sant département Pikine sama nawle yi fi toog responsable yi fi toog 16 communes yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm may mu nakan jërëjëf yóbbul leen ma nuyu ba ca ñoom soxo Njaay ak ñoom ñëpp ñu leen di sant ñu ngi leen di sant naan alhamdulilah beneen bi ci topp mooy dañuy yokk sant si ni borom bi ndax li waxi politique mënu cee ñàkk ba ñam di sant président Macky sàll ministre de la femme bii nga xam ne moo fi toog doon suñu marraine ñu bëgg ko ci suñu xol bu bëgg Awa Niang ci xolam ministre yow la ñu am tey yow la ñu am ëllëg ministre ci yow la ñuy soog a gisee suñu bopp ñun jigéen dali fort consulateur yaa nga ne le siège yaa nga ne le mbana yaa nga ne bàyyi loo dara ministre jigéen ñi Pikine laax ndax lu ma jot fii rek waa Pikine jot nañ ko waaw siège commune yëpp ñu naan la jërëjëf ministre madame la ministre jërëjëf. man nag la li la jox xam nga sa dayo fu mu tollu peese nga sa bopp xam nga sa place xam nga liggéey liggéey lan la jërëjëfati jigéen ñi nag dali foog jigéen ñi Pikine ñu ngi nii toog ñu ngi sa gannaaw tey ñu ngi sa gannaaw ëllëg soo nee na jógoon rek jóg nañ xaaruñu awa ñaa sax ñu jigéen ñi ñu lay sant naan la alhamdulilah dalal ak jàmm ci dali foor naan la jërëjëf jërëjëf gis nañu liñ liñ ñu defal yow la ministre beneen bi ci dama naa jigéen a awa ñaan lan lañ koy fayee a ñaan mi xam ne li mu am da koo bokk ak ñëpp awa lay wax naan yal na yàlla guddal saw fan ci digg dali foor ndax yaay ñu xamal biyee mag awa fi dugal biyee mag si nisaas yi fi toog ni ak délégué quartier yi fi toog ni ak imam yi ñoo fi di politique ba dagg ay hectares yi ñu amee waaye awa ñaan it moo fi ay biyee mag indi fi ay tali assainissement di ko lijjanti di ko wax ba président daal di ko def ci digg dali fort kon awa ñaa jërëjëf ñang semaine mooy d'une semaine la ñu organiser lii yàlla def ci réussite bi kon sante yalla ndax légui rek biñuy wax dañu né première édition sama yaay may mun moko wax mu mel ni manako deuxième édition stade lañuy ñuy def macha allah parce que nak wané nañ suñu doole wané nañ suñu dayoo te nag ñëpp ñëwuñu ndax am na ñoo xam ne xat-xat yi ñoo leen jàpp kon sant yàlla dañuy gërëm yàlla bu baax ci li mu ñu defal parce que nit lu mu mën rek jullit lu mën rek yàlla la ñuy sant di gërëm honorable député wax nañ ko Awa Niang deuxième questeur la l'Assemblée ndax tey moom yoon yàlla def mu nekk coordonnatrice su Benno Bokk Yaakaar fii ci Dalifort ñun ñu nekk njaboot ñëw jàppale ko nekk coordonnatrice u Benno Bokk Yaakaar fii ci Dalifort ñun ñu nekk njabootam ñëw ànd président jàppale ko mu doy ñu ñu ñëw jàppale ko bi ñu ñëwee mu jàppale ñu fii ci Dalifort parce que yaatal ñu ñëpp ñu ànd di liggéey pour kenn muy président ne à César ce qui appartient à César yow yaay suñu xarit yow yaay suñu àndandoo ñu jël bis bi jëlalee ko ñu xam digganteem ak nag honorable député muy muy rakam mu jàppale ko lool kon loolu dañ ciy kontaan. imam Diallo mi nga xam ne moo fi représenté imaamu Dalifort gi yëpp di ko jox wàccuwaayam di nuyu. maam Koor Fall mi fi toogal sunu papa Abu Diop di nuyu délégué de quartier yi fi teew yépp di nuyu sage de Benno Bokk Yaakaar yépp di nuyu l'association des mécaniciens de Dalifort di nuyu présidente association yi fi teew yépp marraine ki nga xam ne mat na marraine may wax imam man sa doom may ma bëgg nga ñaanal suma sœur ministre de la femme Ndeye Saly Diop dama bëgg nga ñaanal ko confiance bi nga xam ne président am na ko ci moom ba dénk ko département bi yal na ko yal na am jàmm yal na ci am réussite yal na ci am lu kawe njottam ndax moom mii may moom mooy man Ndeye Saly ak Awa ay sœur lañu lii mu ma defal lu rëy ndax bari na ay conférence yu waroon dem mais dafa yeble ñëw fi te li jiitu loolu daf doon dafay jàppale Dalifort ci ay financement dafay jàppale Dalifort ci ay matériel dafay jàppale Dalifort ci lépp loo ne mënuñu ko tudd fii kon nag madame la ministre maa ngi lay nuyu di sant di la gërëm ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar yi ci Dalifort gépp te Awa Diagne xam Awa xam nga Awa Diagne ma nga mili ma nekk ba Tambacounda waaye bari na lu may jokk am moom waa Dalifort yéen ngeen choisir ko ne moom mii ci boppam dina bokk ci marin bi kon nag maa ngi sant bu baax di ko gërëm di gërëm nag sama frère Moustapha Diop ñëwul waaye yónnee na sunu sœur Ndiaye Ngom Lawbe mu ngi nii toog représenté ko am na ñoo jóge ci département bi ñi ngi fii toog ñoom ñëpp communicateur traditionnel yëpp ñu ngi leen di gërëm. Oh.